nekk mbootaayu jigéen ñoo xam ne dañoo euh, takku euh, bëgg a jàppale président Idrissa Seck euh, ndax mu am ndam falu 2019 léegi tamit bokk nañ tamit ci collectifu ànd fal idi 2019. sant yàlla rek sant yàlla rek xam ne sëñ Touba moom ay mbiram noonu la rek ku ko dëgmal rek mu wuy la waaw taalibe sëñ Touba yëpp jukk fas yéene koo jàppale. ci liggéey bi ñu ngi def ay visite de proximité di wër village yeeg yëpp village yi wër Darou Moussi ak village yi wër Sarsara ak li wër foofu yëpp département euh, Mbacké bi euh, département Kébémer bi yooyu yëpp ñu ngi ko doon wër di def ay visite de proximité. man ak sama rakk bu tudd Abdou Khoudous Mbacke ñu ngi doon wër boobu ba léegi di approché population bi di leen laaj seeni i euh, jàmbat seeni ñaxtoog yooyu yëpp pour xool bu président euh, falo bu koy fi yàlla tegee bu soobee sëñ Touba ñu xool nan la ñuy mën a taxawoo askan bi ci lu baree bari. ah ñu ngi koy ñaan sëñ Touba ak yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba jërëjëf. ñun nag ñooy soxna yi Mbàkke ñun ñii ñëpp samay mbokk lañ sama mbokk yëpp nag àndandook man ñun ñëpp ñu ngi nii ñun ñëpp Mbàkke lañ sant àndandoo a ah, ñun ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk ak euh, fa say borom kër nekk ak ñun ñëpp ñu ngi mobiliser ñun ñëpp ngi taxaw lu ñu mën mouvement yi ñu xamak ak ñëpp ñu ngi ci taxaw boobu ba léegi kenn ku ñu mën a woo euh, pour changement am ñu ngi ci ñu ngi koy def.